te bis bi nag dafay nekk bis boo xam ne bis bu am solo la ndax mooy guddi gi nga xam ne mooy guddi gi gën ci guddi yi soxna si daan ko màggal at yu bari mbooloo mu bare bare bari di ci ñëw muy ñi nga xamante ni bi ay taalibe lañu waaye mën naa ne jullit yëpp fu ne la bàyyi ko di dikk di di màggal si kon nag loolu aussi dafa tax ba jumtuwaay yi nga xamante ni bi moom lay laaj ngir mu am organisation bu aw yoon jumtuwaay yu yu takku lay doon waaye foog naa lépp daal njaboot gi jotal lañ la ko yéen itam jël ngeen ko te wax naa ko ci njàlbeen bi eh, at mu yàlla sàkk li ngeen di diggee ak ñun di ngeen ko matale kon nag ren jiitam itam rafet nañ jot ci ne di ngeen diggee di ngeen ko matale ñu ñaan ñu ñaan yàlla rek li nga xamante ne bii yéen a ko ci def Euh, sunu boroom fay leen ci loo xamante ne bii lu lu kawe seen njort lay doon di ci euh, woo nag ci turu sëñ Mahfouz mboolem jullit yëpp ñu koy def le 7 join fii ci fii ci Touba ndax soxna si kat dafa tànnoon guddi gi di ci liggéeyal way juróomu tàdd wa ci alxuraan ndax gis na ne sëriñ bi alxuraan mooy li gën a yitteel mooy li gënoon a ñor. moo tax mu laajoon ci ndigal magam ju baax nga di Cheikh Ahmadou Fadal mu joxoon ko ci ndigal wante sax yëmu ca woon da ko caa dogaloon ne ko dina dem di nga dem ba di cere ay giléem te booba ñaari ginaar dong la ko tàmbale woon loolu ñun ñëpp teg nañ suñu bët wax ju tedd joojee nag moo sabab bark bi nga xam ne moo ci tab bi ba saa su nekk rek dafa yokk di yokk ba fi nga xamante ne àgg na fa ren jii danañ tam am leen loo xam ne dolliku na ci ndax ki nga xamante ne bii moo di Serigne Touba tey jii du Cheikh Mouhamadou Mountakha dane lay woore foofu ci biir kër Serigne Touba gi kon ñun njabootu soxna May jàpp nañ ne sëriñ bi sunu gan la mboolem weeru koor wépp kon loolu itam nekk beneen ngeneel boo xam ne ñëw na dolli ko wàcc moo tax moo tax ñu ngi xaar ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp.